maaleykum mbooloo maa ngi leen di nuyu di leen siyaare bala maa wax ba noppi dama leen laaj ku moom janatul ku ku moom janatul fii ñoo moom fii ñoo <laughs> fii ñoo ko moom fii ñoo ko moom fii ñoo ko moom fii ñoo ko moom fii ñoo ko moom ànd koog maam say ànd koog maam Sey maam salaamaaleykum yéen mbooloo mi maa ngi leen di ziare yenn ñëpp di leen sant di nuyu soxna maam Sey ak ñi mu di leen jox seen wàccuwaay di nuyu nag waa Jannatul Maxwa yëpp ak sama bokki bopp yi nga xam ne ñoom laa bokk liggéey bi xam nga kenn mënu leen fee nekk di leen lim ndax kii tuddoon na leen bala ma sant kenn na comme ni ko soxna Bombe waxee rek sama sëriñ bu ñaawul bee moom ci moom laay njëkk baay seex affaire bi yaw la baay seex affaire bi yaw la nax ñun dañuy dugg ci terrain bi di dox dañuy dem ay réunion fu ñu dégg am ndajem appel bi dañ fay dem te xam nga loolu bu ko sa kilifa nanguwul àndu ceeg yow du mën a dem keroog bi ndaje mi di am ah, Macky Sall di fi ñëw gis nga heure ban jóge sa kër te damaa woo ne ma jëloo taxi bu ngeen nee ma fay barke sëñ Tuubaa fuñ ñu mën di dem bu ngeen fay taxi ñaari junni tey bañ egseef ci bundu kër gi lañ koy fekk mu taxaw feeg ñëwul du dem du tëbi kon loolu bu ci ànd tuta kon loolu yëpp duñ ko mën ñu di ko sant bu baax nag di ko ñaanal nag mu yàgg fi lool di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ak wér di siyaare sama waa janatul gi ñoom ñëpp di leen ñaanal jàmm a di ko sàkku ci ñoom ndax comme noonu rek nee nañ luyee ay sees yomb na luyee baas ma ne na ko waaye ay nit kenn mënu koo luyee ndax dara gënta jafe sa bis ñëw surtout nii mu guddee nag booba léegi ma toog leen loolu kenn demul kenn dikkul ma di leen sant bu baax bi loolu jàllee ma sant sama waa bureau bii ñoom itam ndax muy guddi muy bëccëg muy fu ma jógee ñu jóg bu ma ne leen guddi na ñu ne noonu la leen bàyyi leen ñu bàyyi lu ma leen sant ñu def te man nañ maa jiital ba noppi dama fa sax ndax am na ci ñoo xam ne bu ma leen màgget bëri nee nañ nag wane nag bu bu loxoom setee mu mën a bokk ak ñu bokk lu rëy ndax bu dee sama kër papa moom la sama papa yaakaar àddina ak àllaaxira su ma ñëwee ci sama wàllu kër sama borom kër muy wàllu kër ndayam moom la sama borom kër yaakaar moo nu yóbbu àjjana kon loolu day lu rëy keroog bi sama papa ne ma woo ma ba këram ma ñëw toog muy maagalu sañ sooy ñu toog ca këram mu ne ma numbe yaa ngi ci pratique ma ne ko mu ne bëgg nga dem seeti maam say ngeen ànd ma ne ko papa nii nga ma ko waxee am na fu ma ne waaye nii nga ma ko waxee noonu laa koy def ndax xam naa ni nga mel ci biir kër sañ sooy surtout maam say ñëw ne mi ngi yëngu ci politique ma la xamal ne la Mbàkke muy guddi muy bëccëg ñoo ngi ci sa kaw ñoo ngi ci sa ginnaaw foo ñu woo dinañ la fa wuyu loo bëgg dinañ la ko defal loo soxla ñoo nga ci suba ba ngoon baax ak sama waa groupe fii nag bari na ay responsable yu fi nekk ñoo xam ne man na maa lim seen tur am na ñu ma lim seen ñoo xam ne ñoom itam ñu sama ginnaaw te ay nit lañ yor ñu bool ñu bool ñu bari ma bëgg la cee wax ki kenn rek ñi ci des moom xam naa am na ñun fi tudd. ndax mënuma laa fay dangaa def sa borom kër bu baax bi nga ñew wo ma téléphone dama la bëgg japp la mu suñ suñ champs yëpp sama bëgg mu ko seexa bàll nga dëgg dëgg jël taxi nak ay yoon ñew sama kër dox loolu wax ko suma woté ya fay ñëk ya fay mujj kon nag mënuma la fay di sant sa borom kër bi baax nak di sant njabootu suñu sal ñu jënd ma fa gépp suma ma suma limé damay joom kon nak yow lepp luma luma la deful rek dama ko am luma lu ci yow la ndax dang ma ji ngor jima lo loo man maa la war a fay fayaguma la kon nag nga xam ne sa xel dal ni ma la taxaw naa taxaw ni ma la jàppale naa ko jàppalee fii nu période bi ñu toll na du période diggee du ma diggee ndax su ma diggee mënu ma leen a bàyyi ndax dëkk bi sama dëkku maama ma leen daw mënu ma leen a moytandiku nan ñaan jàpp ba élection yi jàll jàmm président Macky Sall am ndam bu boobaa bu soobee seen xol na sedd di sant dama Macky mi nga jàkkaar lool sama xarit lool moom it sama kóolóor ñu bokk na ci parti bi tamat fa ànd bi lool sant ñu dëkkandoo ñëpp waaye sëñ sëñ sa borom kër bi moom dama ci delu wat ma koo fay keroog bam président ni ñëw Touba rek man auto yi demo moo jox la na demal ndax salama fi wot ñu jëpp ñoo ci jitu ñu xamal xam ne président Macky bëgg na ngeen jappal ko baax ba son yi premier tour mu jall ndax lim def ci Touba lim naal moo ko ak wax señ muntaha ji na sa xel dal señ Touba ko liggéeyam fay wax señ muntaha joji rek dafa tax wel ko jàppale bu baax ndax amee ndam lay ñu siggi bu ñàkkee nam tamit dinañ am kersa suñu digganteeg mom ndax lim def Touba kon nag ma len fay jërë gen def contane na bax bu seen xal da sondu sondumee ngi topp ci sondu sondumee bu so bi tubaab di seen jappale bu baax duñ digge nag dañuy def jërë gen def e yi xaa ñu koy waajal baax euh, fas wata ji bala 18 h ñu jox ndam na mak sal xana di len wax rek ngeen ànd ak dal ànd ko mu opposition bi ñi ngi seeni pexé yàq élection yi ñoom nag loolu mooy seen warif ndax defoon nañ ko 2017 2019 bi na moom mooy ñu kenn ku yàq élection bu kenn tàppaas bu leen bu xeex xëy leen wote ji ànd ab dal ak yar dem ak jàmm ñëw jàmm ba 18 daal instant ci président Macky ah, xam ñoom yàgg noo yàq ndax ku ne élection du am élection am li nga maam mooy jéem xool meneen pexe seen pex na jàpp naa lu jëm te élection yi moom matuwaay ñu jël ñun waa APR duñ ko wax sax duñ koy jëf. waaw li ma leen di wax moo dikkee moom opposant mu dikk lu leen wax bu ñu mën a gëm li ma gën a métti nag affaire tarax ci boo tudd tarixa bokkut ak politique dara sëñ tubaa ñëpp la jaboote diggante ñaari kër yi day kenn kër laa jumaa ak kër sëñ tubaa day génn kon nag képp ko sax jaxase ba ke dugal tarixa tarixam kenn dugal yi élection yéen jàpp leen sëñ Tuubaa te xool li mu def folli seen nopp te folli seen i bët le naa nag saa def daal xool leen ko xool jëmmi sëñ Tuubaa ji ak da ko sëñ Muntaxaa wax sëñ Muntaxaa ji rek dafa yemur bi yëpp